Bataille qui ci le scandale du jour VAR avec Ousmane Sonko ñu de du Il n'a pas abdiqué parce qu'il serait un démocrate il a abdiqué parce qu'il y a eu la pression de son peuple d'abord. On a woon ça, war cest gouvernement du subir une pression wala benn chantage. reculé parce qu'il y a eu la pression internationale. fermeté kon quelquefois pour le bien des gens et pour le bien collectif di nga dëgëral fu dëgëral waree mais dañ ne ci réew moo xam rapport bi am diggante bi daan am bok diggante état ak nit ñi moy toujours rapport de pression la de chantage de menace bu état bi deful li ñun li wala état bi war nañu wala dootuñu ñuko wotel wala wotewuñu ko ngir li déedéet ñun nekkuñu ci. euh bu mu toogee France 24 nee on a appliqué parce que on on on on on vit la pression de la population bu mu toogee ci Sénégal di wax ak ñun sénégalais yi mun na ñoom seen nguur du nguur bu pression lila laa amul li ma leen di jottali ci wax ci Sonko waxati li. même personne bi moo wax mm, mm, mm, nee na tubaab yi lépp lu ñu fi jël parce que ñun dañ ñoo dañ ñoo teg pression mun nañu ñun sénégalais yi ñun duñu nguur bu ngeen di teg pression. ana com lii nag mooy complexe waaw li ñuy wax doo ko wax ñii xamal ko ñii ah moom de nee na ñun dañ ay waay ñun ban pression say wax lañ lay fàttali say mën naa lañ lay wax ban pression ah waxum dund gi lañ fi wax di yaakaar na waxum wàññi dund gi wàññi dëkk lii bi te loolu yaa ko fi digge woon ah baax na yàlla baax na